marhaban wàllum wér-gu-yaram daal nay fës lool ci xëtu yéenekaay yi Walf Fadjri quotidien nañu ay jafe-jafe daal nañu am ci opération jëmale ko ci wàllum cardiopédiatrique li ko moo di lu tolla ko junni ci ay tuutànk yu feebar ñooy xaarandi jamono jile tembe ci liste ba ngir ñu ma leen opéré ci centre cardiopédiatrique QMO bu hôpital Fann Walf Fadjri quotidien ma nga xam le ni ay tuutànk yu bëri yu amee feebaru cardiaque ñoo nga fay xaar ngir ñu ma leen opéré waaye nag ci bu fajukaay mënuñu faa opéré lu weesu ñaari tuutànk bés bu ne te moonte de suñu naataangooy ñu ngi xam le ni lu tolla ko ni ci yooyu lay tout tànk ñooy xaarandi ci état gi ngir mu baral ay jéegoom su ko defee ñu mën leen wàllu ji docteur Soxna Diagne mi correspondantu Monaco collectif humanitaire fii ci Sénégal mu ngi xamle ci biir yéenekaay bi ne ay intervention la yu diis lool yuy laaj ay moyens yu takku loolee waral ñuy sàkku ndimbal jëmale ko ci kilifa yi ngir ñu mën a wàllu ji le yu amee cardiaque ndaxte mbirum xol mun taxaar ci wàllum wér yaram ba tey bés bi le jour daal nay dikk ci di fa nga xamante njëkk fii ci Sénégal moom colonel Youhanidou Wandja suñu naataango yi ñu ngi xamle ni bile transplantation bu njëkk bi nga xamante ne daal di nañ koy amale fii ci Sénégal moo daal feeñal xar kanam gi bile directrice su hôpital bu Wakam ab gynécologue obstétricienne la am li war a tolloo ko juróom fukk ci at nekk itam yaayu njaboot bu exemplaire juddoo fale ci Saint-Louis mënoon naa tegu ci yoon waajuram bu góor di Amadou Tidiane Wane ngir doon ab ingénieur Ndour daal jàppale bi la doomam ci ay bëgg-bëggam ak bépp jafe-jafe bu mu ciy moo xam ci jaar-jaaram ci lycée Van Vollenhoven mi ñu tuddee léegi lycée Lamine laata muy jàll ci ab concours bu jafe lool jëmale ko ci wàllum santé militaire bay génn ci fac médecine ak bu diplôme gynécologie obstétricale ginnaaw bi mu desee ñetti weer képp ñu sóobu ci élection présidentielle yi yéeni kaay l'info mu nga xam ni ay acteur politique ak ay mbirum démocratie mi nga xamante ne daa menacé mën a dakk ba fawa loolee waral yéene kaayu nañu ginnaaw fukki at ñu fare ci société civile gi li ñu bëgg moo di indiwaatu conclusion assise nationale yi ci débat politique jëmale ko ci élection présidentielle ñuy dëgmal jaa ngeen jëf